semence yi ñu moom wax dëgg yàlla dugal ko ci dara loolu it ñu ngi ci am yaakaar bu baax parce que ñu ngi waxtaan ak nguur gi ñu ngi ñuy wax lu dal suñu xel waaye daal li nu bëgg mooy fii le 3 nañu fexe ba am lu nu mën a jox banque yi banque yi man noo joxaat xaalis lu tey nag kenn ku ne la nga am da ko yóbbu ci àll bi pour tàmbali ji campagne suñu jafe-jafe ñoom ci année yi ñu génn daal li nu bëgg mooy teggi teg wàccee sa camion ñu fay la waaye signé 48 heures di fay ci weer wala di fay ci ñaari weer loolu moom dafa xaw bari wala di fay ci lu boobu li nu suñu difficulté daal mooy ku teggi nañ ca teg camion bu génn nañ ko fay attente bi daan am ci usine bi nga xam ne camion bi day dem fukki fan wala lu ko ëpp dañoo bëgg loolu yi ñu wàññiku ba nga xam ne camion bu dem suba saa nga mën a ñaari fan ñetti fan gën ngaa bari parce camion bi dem jëliwaat kenn loolu it na tax campagne bi gën a mën a xam na ci nga xam ñu ngi koy ñaan. nuyu président la république ci boppam di ko ñaanit campagne bi comme ni mu ko yàgg a defee di taxaw baykat yi mu gën a fexe ba acteur yëpp euh, jot seen crédit yi ndax crédit yi ka du opérateur yi kese association producteurs yaa ngi ci biir képp kuy def gerte rek di def semence crédit yooyu yaa ngi ci amee kon nag euh, maa ngi koy ñaan ci li mu bëgg ci campagne bi te lu baax rek la bëgg ci campagne mooy campagne bi dox kon nag li koy doxal mooy xaalis euh, nañu fexe ba xaalis am boobaa campagne bi dana ci ay usine bu nekk day wax objectif de collecte Sonacos nee na dans un premier temps euh, objectif am 150 000 tonnes euh, yeneen usines yi am na ñu def 60 000 tonnes am na ñu def 40 000 tonnes am na ñu def 25 000 tonnes donc li ma a wax mooy daaw usines yi boo boolee jënd nañ 190 000 tonnes ca ragal naa ni ren daañu bëgg nañoo jënd ko